mais ngi tudd Pape Alé Samb comme ni nga waxee Pape Alé responsable politique APR Dieuppeul Derklé euh, vice coordinateur du comité électoral de Benno Bokk Yaakaar de la commune. si may njëkk commencé mooy fi nga laaj si nga wax ne Pape Alé yaay bunt buntu bi euh, buntu la terme buntu je du ma ko sax utiliser noonu mais en fait président lu tax lu tax lu tax ma gars yi di ko xoolee parce que le président de la république dafa ñu ne Pape Alé dafa ñu ne il faut ngeen yaatal. APR c'est un c'est un parti qui qui qui se construit c'est un parti de longtemps bu bu ma amee yàggul mais président dafa ne papa fa ibi ibi buntu bi ngeen yaatal. Euh, euh, euh, yaatal et puis et puis ngeen ngeen ngeen tette gars yi gars bi donc donc du coup man si si si yoon bob si optique bob la nekk di di di di massifier di yaatal di ibi di yóbbuwante ba ñu ba ba ñëpp voilà voilà pourquoi ki ñëw ki ñëw fii fekk ñu fi ñu ibil ibil ko bunt yi ñu and ñu ànd juste pour l'intérêt président de la République et aussi pour pour pour pour pour le bien-être des des des populations des populations bon campagne mon campagne ñu ngi ko préparé je pense que parce que comme ñëpp comme comme comme ñëpp ñu ngi ñu préparer, comme tout bon apprenti comme tout bon membre de Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ko préparé noonu la ñu ko préparé on a mettre benn comité électoral en place avec euh, Babacar avec Babacar Bèye déjà du port euh, avec man ak ñeneen ak euh, une équipe très dynamique on a fait aussi des zonages mais ça veut dire commune bi dañ ko diviser par zone zone Dieuppeul les Castors 5B Liberté 5C ak Liberté 3 Il faut être responsable am ay de pont et ku nekk mu ngi dox do mais liggéey quand même j'avoue qu'on on a on a accentué surtout si jeunesses bi. ndaxte ñun ñoo mën a sensibilité ñoom ñoo mën a egg foo xam ne euh, mag yi duñ duñ fa ñoom mën a egg foo xam ne ji jigéen jigéen duñ fa nekk te ñoom ñoo xam aussi réalité terrain bi dëkk parce que euh, c'est c'est c'est eux moo tax ñu jël liggéey bi yëpp ñu ñu ñu concentré ko seen seen seen kaw et puis ji euh, jiite leen jojoon nañ cër cër bu mat lu tax lu tax lu tax ñu def loolu parce que je me rappelle jour ñu dem si benn kër. nous euh, si benn visite proximité nous avons benn benn femme femme qui football mu est vraiment euh, papa le ko vraiment suñu mais le jeune il a répondu il a répondu euh, par une phrase qui m'a touché dafa vraiment grand C'est vrai, c'est vrai mu affaire sama yaay kese moo lay jàppale mais soo jàppale sama doomu yaay sama doom dina la jàppale te sama yaay dina la jàppale loolu laa jàpp jàpp vraiment boo tax ba léegi jógum jógum jógum ñoon te phrase boobu vraiment vraiment moom moom touché